concerné wu ma man aw ma ci kaddu parce que li tax aw ma ci kaddu mooy yëguma ci sama bopp lu ma yëgul sama bopp nag aw ma ci tontu li wax rek mooy que man dama bàyyi lépp ak yàlla sunu borom man damay politique waaye je suis une femme très forte te li ma ébranlé nag dafa bariwul waaye nag loolu comme man sentiruma sama bopp na ma ci wax sama yoon nekk. am na ñoom xam dañuy bëgg di la faagaagal wala dara wala lu ni mel. waaw loolu moom mënu ma si wax dara képp am na yéene daal awaña wala nga ñeema yaakaar ne awaña dara dina ko ébranler maleureusement man aw ma dara lu may ébranler parce que daal li ma war a def dama koy def li ma war a nekk dama ciy nekk waaye lu ma intéressé wul sentiruma sama bopp duma ci am tontu.